bororewate moo gën a dox ak dindi dindi tamit rafet na trop yoo xam naa xale yi jigéen ñi bëgg nañ ko lool mais borode bi moom moo gën a dox foofu ci kaw a def am na ci kaw a def am na ci kaw am soo tudd yow man góor gi Mbaye waaw mbir mi mbir mi fu mu toll ni non mbir mi fu mu toll moom nit ñi bëgg nañu contre jasinaire bi bëgg nañ bese coton bi bëgg nañ lee yoon ñëw ba pare mais lee yi lañ gën a bëgg ngi xaw a jax. waaw waaw bu bëggoon xam ci wàllu gis yi. ah jamono yi euh, lan moo xew. waaw jamono lan la gars yi di di wut. gars yi fu mu nekk nii ñu ngi jënd bu baax a baax am na contre jasner rex am na vex bu dee par bal am na am na par piche par détail tamit na nga ko jaay mais piche vaal tamit am na vaal wiir wiir am na. tool yu bëri am na daal quartier yu bëri pour tàngoor bi yére am am na tabaski bi moom macha allah gars yi fi mu nekk nii ñu ngi jënd bu baax fi mu nekk nii xanaa ñu ngi gën a sant rek di leen sant yéen ñi tëdd foto di leen ci nekk ci rajo yi yéen a ngi sant ñëpp fi mu nekk nii alhamdulilah rabbil alamin gars yi ñu ngi ana Cheikh bi sant yàlla baax na bi naka la pour papier la waaw waaw mun naa xam euh, business su tiise bi fi mu toll waaw tiise bi ñu ngi sant yàlla rek ñu ngi jaay ay wax yu rafet ñu ngi jaay ay saba ñu ngi jaay ay tàgget waaw Birahim Bassiré di jaay contre Jazner waaw sant yàlla rek. Didier ma ñëw wàññi ma sol bi wàññi ma sol ma ñëw Didier wàññi ma sol ma ñëw man ngeen samay borodé samay xeetu borodé yi ñu sa waay deux mille laa koy jaayee xoolal samay xeetu borodé deux mille la jar xoolal samay dentelle sa waay dugg si lii ci biir xoolal samay suwa xoolal samay xeetu suwa sa waay di mel xoolal samay suwa au lieu que xale a ak jàllu mag yi xoolal fii lay mburu mi di xoyam xoyamee bari ko ma ne duggal ma si biir ci biir place bi ci biir laa bëgg duggal ma yaay wan na bagaas yi wan na yu baax yi fii mooy place sama yaay booy ñeeño bi nga xamante ni naag moom moo jox autorisation ah, waaw waaw waxtaan naag moom nee na moom bu ma mais naa filmé li ma bëgg a jël ma dem loolu ma wax quoi dernière question bi ndax client yi ñu ngi ñëw ak doole wala léeg-léeg client doole moom mais nag waxaale kat yi ñëw jënd kat ah. Ah. mais ñu ngi jënd nag mais nang na mais yàlla baax ndax fu mu toll la yàlla baax na ok nga ma baa ngi fi wax yu baax yaa ngi fi yëpp été la def jongoma macha allah boo ko sañsee rek sa tabaski baax ñun da ci yii rek la ñuy dox lu rafet la jaay te cherul loo am boo ñëwee sañse muy mag xale góor ak jigéen loo am rek boo ñëwee sañse macha allah lu jongoma la ñuy jaay fii mooy VIP boo ñëwee rek sañse lii rek la bu ñu ñëw fii mooy waa VIP VIP may jaay sama mag moom laay jaay la xam nga ñu ngi woo waa VIP baaru sëñ Fallou laa lay rëpp sëñ jaay ci si voilà jibbir yaa ngi mag ji gis nga namul dara gis nga ko waaw. ku bëgg lu baax lay ñëwul. nga xam ne. lii lii dafa am fii si waaw moo ngi nii ak jaari ak jippiir ak ndaa jaari ndaare ak ku bëgg rek def am baax rek ñëwul fii laaj. ak ku a daal sa àllaaji ku mer ñëwul fii tasa si sa baa ngi. waaw client moom ñu ngi moom macha allah ñu ngi jënd moom macha waaw. ñoom xam nga rek boo ñëwee fii boo laajtee Awa Jaxate wala ñoom Ndey Xadi wala ñooñ rek waaw yaay bañ waaw suñ ko xam nga rek moom namuñu dara no stress